jataay yi ñuy fas yéene di ànd ak yéen saa su ne ci seen télévision BCM TV muy sëñ tubaa ak koor seen mbokk Seydina Omar Diagne Achadul Khadim di ko ànd ak yéen mu mel ni poñub juróom benneel bi lañu ñu war a ànd ak yéen ba tey may yi nga xam ne sëñ tubaa ne na yàlla may na ko ko ci weeru koor mu mel ni dégg ngeen ci pas-pasam ak pësifam fi tegoon weeru koor ak jàppin mi mu ko jàppe يجي جنان يقود لي سهر ربيه الأول والرمضان مفهما كل ولي سيñ bi neena yalla ñoddal na ma xéti ndam xéti tawfiq xéti ngeureum yo xamné weddam lo na képp ko xamné waliyu nga ci yalla weddam lo nga képp ko xamné qutba nga ci yalla daraja ju waye am ci yalla ak luko waye mëna may lima yalla may ci wéru koor man seigne touba taxna wali wu ci nek xép lako yalla mayon lol nak daraja ju kawé la tekkene jazaba shahru ramadan li karam باق قديم فانا حي ينشرب يعني سي نا يالا كوبتي لونا قيتي ترانغي اقيتي غرمي تي ويرو كور وي نيو تيرال جوخ ماكو موم ميغا خا ني ادي ديس لا واي مان ميغا خا ني داماي ليغيال يونتي بي صلى الله عليه وسلم وربتي ني يتي يوي اك ندام ييب جوخ ماكو مان سيغ توبا ييغ تي ييت دادي ني كون فا يكون تي بوبام تي ويرو كور لاني ماكو جوخي خمغا فاجا اني في رمضان الاعظم بكن وباسمه العظيم الاعظم sëñ bi nee na yàlla ci boppam moo yebal kun fa yakkoon ak ismullahi azam ne leen dem leen wuy ji Ahmadou Bamba te dëkkee moom mu moom leen comme ni mu moomee xeeti ibaada yi ma ko ma yépp nee na ci weeru koor la ma ko yàlla defale mu doon loo xam ne lu kawe la waaye nag war a ñaax jaam bi aju ci sëñ tubaa mu war a gën a fonk weer bi raqa ila fawqil muridi kulli fi ramadana mukshiran lii kulli sëñ bi moo wax ne yàlla moo yëkkati sama xeeti dara ji yépp ak sama nammil yépp ci weeru koor baril sama yiiw bariwaay boo xam ne néewaane jaam bu la wax ne mankat am naa yiiwu tal ni monsieur Ahmadou Bamba am maddali di haba bi fayadaan ma situ minha inda sehri ramadan ma situ minhu inda sehri ramadan loolu sëñ wax moo tax euh, képp koo xam ne aju nga ci moom nga war a mën a gën a góorgóorlu war a gën a mën a sàmmaat weer wi dem na sax ba Basiru wax na ci minul baal xadim ne sëñ bi dem na banaan kaana sëhru siyaamu sëhru aydun lahu bu fekkoon ne ci ay teggin war nañ koo mën a wax ne feet wala xeetu teraanga wala ndam sëñ bi nee na sama mbégtewu feet mooy weeru koor moo tax kon yàlla nañu sëriñ bi xiir ci euh, ñu gën a fonk weer wi di ñaan borom bi subhanahu wa taala defal ñu ci ak bëggam defal ñu ci suñu bëgg muy ngërëm li seen mbokk Seydina Omar Achadul Xadim tomb bu juróom benn moo nekk noonu ci seen BCM TV nga xam ne tele la boo xam ne damay wax saa su ne ngeen war a yokk abonné ak jàpp gi ndax seenu yitte dong ak seeni soxla rek ci lay nekk saa su ne wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum ya